Salamu mbokk yi kuréel gi wër aduna tass Reumi, bitim rew ak ci bi rew mi dajali ay talibe murit te nag du len luddul borom xam-xam yi bind di léral ak fessel mindum borom Touba kurel gi ñu gën xam fond d'appui pour la vulgarisation des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën ko ragné si favoka kurel gi nak mbokk yi ñoo jóg taxaw tem ngir mo lepp lo xamante ko na ci borom xam-xam yi jëm Serigne Touba mbokk di Fatali amna commission scientifique buy gëstu di saytu mbind bu mëna doon langue yi di arab français anglais ak mboolem xeetu jokkalantekaay commission bu nu mel ëmb si biiram ay borom xam-xam yu mag yu nu ragné si yoonu murit suñ si paree non ko valider su ko defee ñu soogee amal mool bi te nag du ngeen si fay dara gratuitement lay doon si kanté bu mu mën doon ngir tas ko si àdduna wërngal kep si mbooleem bibliothèque mbooleem musée fep fu borom xam-xam nekk si aduna wërngal kep mën ko jariñoo ginnaw biñ joté ndigal si Serigne Mountakha Mbacké Bachir khalif général des Mourides si sen kuréel gi ñoo ngi fas amal sen lancement bés bu njëkk si wër koor loolu waral mbokk yi au Cap fond d'appui pour la vulgarisation des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba Nyong ngi bolem Boko mbooleem mbokk julli déeg mbokk taalibé yi dañu xam ni kat liggéeyal Serigne Touba si xam-xam dara gënu fait féete kaw li nag dëppoo liggéey bi Serigne Mountakha Mbacké di Wate si mbirum xam-xam mbokk si renseignement mën ngeen woote numéro yi bu Canada plus 1 204 881 80 88 bu Sénégal 77 413 29 08 Son email dit contact au singulier arrobase favocap.com mën consulter son site de www.favocap.org.